bi àjjuma fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mars le 19 mars dafay date boo xam ni ci taarixu Sénégal duñ ko fàtte ndax gulet alternance am en 2000 la woon euh, maître Abdoulaye Wade nekk président wuutu euh, Abdou Diouf waaye beneen alternance 2012 am na Macky Sall toog remplacé euh, maître Abdoulaye Wade moomu comme euh, Balde looloo la fi indi ci tënk rek ni ma ko waxee comme waxtu wi dañoo dab ban jàngat la ñu mën def diggante alternance 2000 bi ñu euh, amee euh, alternance bu njëkk ak 2021 bii ñu nekk changement changement dans la continuité ndax ay rupture am na noo ko jàngatee. Abdoulaye dafa am loo xam ne foog ñu xool ko 21 ans dafa symbolique. Mhm. bu njëkk ba bala ñoo changer loi bi nit da ngay majorer à 21 ans. Mhm. waaye léegi 18 ans la. bu buñ koy jàng maanaam dafa mel ni alternance léegi majeure na. Hmm. première alternance démocratique 2000. Hmm. Abdoulaye Wade contexte électoral bi ak contexte électoral bu Macky Sall wute na. Hmm. Abdoulaye Wade dañ ko fi noonu parce que y avait un bon, c'est lépp espoir moo ko tënk. mais man sama intervention dam koy axé ci benn mot justice bu signifié wu justice judiciaire kese dafa am justice économique am na justice sociale am na justice judiciaire justice mooy. ñun dañoo rafetoon jort ni de Abdoulaye Wade Macky Sall danañ am une certaine équité sociale nit ñi danañ yem leneen ak leneen dañoo yaakaaroon ne également nekk justice judiciaire bi fa ñuy àtte dana xaw a tëree njaxanaay ba dalal démocratie sookul démocratie justice la te dañoo gis ne côté boobu sentiment bi dafa yokk c'est un sentiment d'injustice sur le plan économique dafa am lu ñuy wax développement quantitatif ak qualitatif Abdoulaye Wade ak Macky Sall def nañ loo xam ne da nga koy gis teg nañ ci bët mais dafa am lu des. Hmm. dans la gouvernance des deniers publics euh, gis nañ fi impunité ci Abdoulaye Wade gis nañ fi ci Macky c'est vrai que Macky Sall ñëw na ak yéene OFNAC et cetera mais inopérabilité yooyu noonu wala léeg-léeg le fait ko yooyu duñ laal ñeen duñ laal ñenn ñi bokk ci régime et cetera du dalal xel ndax ñun. 2000 Macky Sall 2012 euh, plutôt bu ñu koy fal je pense dañ ko fal ci sentiment injustice également ndax la ko daloon ci assemblée nationale en 2008 un espoir mais on a comme l'impression que ce sont les mêmes pratiques xëy na régime yi changé mais nit ñi fi nekkoon ñoo fi nekkoon xëy na li ci changé mooy société civile bi renforcé wu ñu tuuti ak ñoom Y'en a marre même si on a vu ñu nekkoon ci société civile ci Wade dem rejoindre Macky Sall deuxième élément gis nañ fi également euh, sur le plan économique creuset bi dafa yokk ñi ñàkk dañuy gën a ñàkk ñi am dañoo gën a am mm-hmm. te loolu dafa fekk ne il n'y a aucun mais il y a des des rapports des corps de contrôle yoo xam ne ba tey waxaguñ ci donc pour man am na changement sur le plan qualitatif ça il faut il faut il faut l'avouer quand même mais sur le plan de la démocratie li fi xew fan yi dafa montrer ne que la démocratie a été euh, dañoo dañoo dañoo dañoo laal démocratie dañ ko gësam xam nga euh, Ablaye Wade il faut lui reconnaître quelque chose c'est dafa contribuer ci euh, libéraliser dafa continuer ci yaatal liberté d'expression mm-hmm. avec la presse la presse et cetera c'est vrai que dina naa jamono ji il y tellement de fake news que doo xam ci ban information ngay ngay fiyew mais il faut reconnaître mm-hmm. il faut reconnaître qu'on n'a pas avancé mm-hmm. il faut reconnaître que sur le plan de la transparence dafa des ba léegi yaa a des y a des yoo xam ne ba léegi nit ñi xamaguñ ci lu lu bari dañoo reconnaître ne également je donne un exemple comme ça hein. Karim Wade bu ñu koy aatee on avait une liste de vingt cinq personnes c'est vrai que xëy na am na ñu ci suuf ñoo xam ne peut-être y la médiation mais ñun les sénégal on a le droit de savoir ci vingt cinq yooyu diw fan la mujjee ak suñu alal parce que ils ont été poursuivis pour enrichissement illicite moo tax ma ni la. Euh, xëy na lu rafet la ñu am alternance parce que professeur Souleymane Bachir Diagne dafa am lu am solo lu muy wax mu ne l'organisation d'élections à intervalles réguliers et le rythme normal de la démocratie euh, de la de la respiration démocratique maanaam démocratie bu doon jëmm la bu doon nit la dafay noyyi nu muy noyyee ko nokki loolu mooy élection euh, bu leen fàtte ni mais maires yi les maires yi mais seen seen i légitimité jeex na depuis 2019 te loolu pour man au Sénégal c'est un recul démocratique pour man au Sénégal c'est parce que bu ñu seetloo de 2000 à léegi lu ci ëpp on a des années électorales chaque année ci élection en fait élection moo ñu xaw a tardal fichier beeg lii donc c'est des questions oo xam ne war nañ ko mën a lijjanti ma benn parti ah, maintenant maa ngi dalal sa xel ci benn affaire fi ñu la formé lañ ma formé j'étais membre du mouvement des élèves étudiants socialistes. Ouais. non non non mais damay préciser également j'ai j'ai j'ai l'obligation de préciser. <laughs> teewul ma fi kenn le président de la République suñu président ñu ñëpp la suñu alal lañ ko dénk. n'est-ce pas même si tooñ nañu fii ne bon vaccin bu ñu ko bëggoon mu may ñu ñii nee nañ butaat la c'était une erreur de sa part. alors président man bokk naa ci ñu ko fal je je précise li ma bëgg a wax mooy. li ma. c'est dommage que ah, dama sonn. on a le droit de poser des questions. non sonnoo da nga xiif. <laughs> sonnoo da nga xiif sonnoo da nga xiif voilà mooy. c'est dommage que dama sonn et c'est dommage que. allez non non on laisse Baldé terminer. non bàyyi ko mu ah, pare. non non non y a pas d'accord donc je disais que. on a on a connu il faut le dire des acquis démocratiques comme ni ko professeur Madior Fall doon waxee mais on a connu. euh, des actes de nature à déconsolider notre démocratie ça il faut le dire sentiment d'injustice bi ñu am ba tey man sama wax ci loolu laa koy tënk ba ci gouvernance yi il faut peut-être euh, quand quand ça marche il faut applaudir Birima mais quand ça ne marche pas il faut, le dire également par exemple concession autoroute bi sous Abdoulaye Wade c'était une catastrophe. Mhm. Macky a fait un pas c'est un pas qu'il a fait. baax na maintenant le PUDC également il y a il y a des améliorations maa ngi dugg ci biir réew parce que c'est mon travail. <laughs> maintenant <laughs> non non buuba politique non buuba politique wul. waay mani non billaay politique. li nga wax ni yëpp kenn du ci yenu maanaam mais Boubacar ni ci tànk boo politique wul ci tànk politique. c'est un discours politique. non am na lu nekkul politique quand même. non li muy wax dëgg la. waaw d'accord non li muy wax dafa am solo mais discours politique la. mais c'est normal waaw mais non mais doo ma bàyyi sama perception doo ma ma ne sama non non loolu mais xam nga aussi xam nga aussi man daal réew mi jaaxal léegi nag vous lui reprenez la parole comme ça waaw mais ah, yaakaar naa ah, ko ah. mais day politique on n'est pas à l'amphithéâtre bu Bakar mi moom du yàgg dara mu départé mais bëggoon na lan mooy politique lan mooy politique non non mais non non non bu ñu dugg parce que bu ñu déggoo yow mi sax da ngay politique non non non bu ñu dugg ci non man non temps yi laa wax léegi nga dégg F F b naka la Boubacar kii BD kii <laughs> quelque chose. <laughs> candidat présidentiel. non non xam nga. en 2024 non parce que dafa am non dafa am dara lu am. attends dafa am dara lu am. li muy wax nii c'est-à-dire que xam-xam tigi la. Hmm. mais politique la ko base. day politique. mais lan la jot mais mais Charles bàyyi ma. mais attends bu utaar xoola bu mani. lu dara. c'est quoi ton ton ah. ton argument. sama argument mooy que xoola. c'est une affirmation non non non appel du pied lay def. ah, ah, ah non dina dem ci opposition wala mu former parti mais kii c'est un politicien discours politique lay def. Pape Djibril allez Pape Djibril journaliste dañ leen di jàngal ne. en journalisme. Euh, les faits sont sacrés le commentaire est libre mais c'est libre exactement non non je je voulais dire que je voulais dire que am na loo xam ne am na loo xam ne ëpp naa wax politicien bu mag <laughs> bu bu arrête de perturber non perturber wu ma barke c'est mais il a le droit mais il a le droit des politiciens Boubacar de Charles Faye nga tudd Gaston Madera des <laughs> politiques des politiques di ko biri ma di waxe politicien bu rek la voilà. non j'ai l'habitude parce que ak samay étudiants et tout ça euh, donc j'ai ah, l'habitude man ah, contradiction la démocratie ñaar la. <laughs> oui participation ak contestation. participation mooy askan bi di bokk. mooy élection di am ñu xam les règles du jeu ñuy dem. Mhm. contestation contestation mooy l'existence d'une opposition mhm. forte. maintenant sur sur le principe il y a une opposition textuelle. mais sur les on a on n'a pas d'opposition donc fu laa bëggoon daanelee xëy na temps bee ñu tënk. Uh-huh. ñu amatee occasion ñu waxtaan ci. incha allah mais Charles oui. mais man vraiment lu ngeen di def nii euh, Boubacar euh, c'est pas très bien. parce que yéen noonu ngeen mel quoi. non non ngeen commencé. mu wax ñu dégg nit mu wax mais non xam nga Charles Charles et puis ping pong yow nga commencé. kenn non ba pare non man nit mën na wax xam-xam. voilà mën na wax xam-xam mu wax ma déglu ba pare ma am. sëñ bi kii kan daal déglu leen kan. leer laa leen yàgg dara non bàyyi leen Charles yi jéem a défendre may leen ma. li may wax ni xam nga lu tax ma koy wax. mais nag programme Charles xam nga lan may wax ni. non non non du loolu non Boubacar Boubacar Boubacar depuis le début. Kamba bu fekkee ni politico tamit ah li ñu dégg nii. mais daf li ngay wax ni dafa taxaw. donc boo politique wul woon aussi on t'encourage à <laughs> non dëgg la mën nañu xool nit. mën ah, mën nga dégg nit mu wax ba pare. Charles mais nañ dégloon de ah, Charles non dama ne mën nga dégg nit mu wax ba pare nga ne kii wax na mën a def politique. ah, ah Pape Djibril. Euh, Abdoulaye Deme vraiment nee na je ferai un très bon politicien. pour moi le terme politicien il est péjoratif. xëy na dafa bëgg waaw mais maintenant xam naa la pourquoi nga war et que fu mu ne nii kàmb bi nee na nii Sonko ngi taxaw Idrissa Seck ngi taxaw. yow ki daal di gëm ak la. il ne sera pas candidat. en 2024 ah non waaw loolu wóorul. voilà waaw dama la ne xam nga. non loolu wóorul waaw léegi c'est la parole. je ne fais pas de politique. mais Boubacar que ça pourrait venir. si yu lay tam mais Boubacar si yu lay tam non non ah ma lay ne nga politique. parce que parce que le droit simplement te bul nangu lay diriger. non non mais non léegi 2024 affaire yi leer. c'est Ousmane Sonko, c'est Karim Ouad, c'est Khalifa. On va voir comment on va faire les choses pour que. Et il y a les autres aussi ah. boo commencé lim déedéet da ngay non non. et puis et puis non il a un très bon am na ñeneen am na ñeneen ñu fi nekk de la politique. non ñeneen ñaa ngi fi nekk jàkkaarloo très sérieux. voilà munoo lim ñenn ñi bàyyi ngeen boo leen di lim da ngeen lim yëpp wala ngeen bàyyi. ah il faut. Euh, non non non non munoo fi nekk lim ñenn ñi bàyyi ngeen da ngay ni lim ñëpp. Ah. parce que 2024 c'est maintenant mais c'est dafa am ñoo xamante ne euh, l'histoire politique et l'histoire des élections ont montré que c'était de véritables ils c'était pas des partis ADN ñoo xamante ne duñu kii mu am ñeneen ak ñeneen am na ñoo xamante ne fii Sonko c'est tant de pourcentage Idrissa Seck c'est tant de pourcentage Karim Wade est-ce qu'il va venir amnistie ak yu demee noonu tout ça tu as le droit de faire la politique mais pour revenir sur le sujet di ngeen ma bàyyi ma wax de 2000 2000 quand on 2000 quand bu ñuy passé alternance nous sommes à 9 millions d'habitants. Sénégal, 9 millions d'habitants. La superficie du Sénégal n'a pas changé. La superficie de Dakar n'a pas changé. C'est la population qui a cru. Nous mm. sommes de, à 16 millions et quelques tailles. Bougny, le budget était de 562 milliards. En septembre 2000, nous votons le budget. Pour Yoboko, pour le budget de 2021, nous avons un budget qui va croître et qui va être multiplié quasiment par 3, passant de 562 milliards à 1200 milliards. Mmh. La population est toujours de moins de 10 milliards, de, de, de moins de millions. loolu bu ñu ko defee si biir loolu président Abdoulaye Wade ñu jox ko loo xamante ne qui va lui donner une possibilité d' avoir 360 milliards yoo xamante ne moom moo koy dem lijjantal au nom du Sénégal moom mooy gën a di ko 360 milliards yooyu ëpp. la moitié du budget du Sénégal ñu amoon les emprunts vont monter à sept cent et quelques milliards. On parle plus de de de de d'économie de budget. Euh, dans tout il y a. tekki sa micro dégguñu li ñuy wax. Euh, dafa am non jarul def. non dafa am. sept minutes ci des bëreetul. non c'est pas ça ça dire dafa am. lecture ku ko bëgg def. da ngay taalaat moom daf ko def ci lecture boo bëggee wax rek taalaat. waaw mais soyez daf ko def ci lecture politique. Mm. daf ko lecture politique wax kii. mais moi je man dama ko jël ci lecture économie. oui pour pouvoir suma argumentaire teg ko ci. 562 milliards, c'est le dernier budget du Sénégal à moins de 1000 milliards. Aujourd'hui, en 21 ans, nous sommes à 16 millions d'habitants. Qui peut me dire c'est combien de, de mille milliers, de dizaines de milliers de milliards que nous avons de 2020 à aujourd'hui Dakar, 0,3% de de, du territoire sénégalais. Aujourd'hui, c'est près de 5 millions d'habitants, soit le quart de la population sénégalaise. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans les autres régions pour que Dakar ait une loolu lecture boobu boo ko xamee nga xam ne que si wàllu politique si wàllu économie. Hmm. nit ñi il y a quand même des limites extraordinaires la hmm. concentration de tout à Dakar. Hmm. et de 4 millions voire 5 millions montre quelque part la faillite des politiques économiques et des politiques sociales si biir si biir yeneen dëkk kooku mooy la preuve lu newoon en 1900 en 2000 loo xamante ne. kii moo ko indi lu mu tudd sécheresse problème kii exode ak yi doy on n'a pas créé une politique pour que nit ñi mën a delluwaat gox du point de vue de loolu par contre les dépenses de l'État se sont accrues de manière considérable dépenses publiques yi accrues de manière considérable à telle enseigne que tey on a milliards de déficit budgétaire kenn du si wax parce que kenn bëggu si wax on s'est retrouvé avec des dépenses yu am maanaam mais par contre les recettes ne sont pas ce qu'elles doivent être suñuy recettes essentiellement et c'est ça le problème en vingt ans pour des régimes deux régimes yoo xamante ne qui se réclament quand même de l'idéologie libérale on se retrouve avec deux régimes yoo xamante ne xaalis bu ñuy jël yëpp san lañ koy jëlee c'est importation yi avec la douane ak mu tudde si yenn taxes yu ñuy def donc ça veut dire que les exportations yoo xamante ne moom lañu waroon xalaat liggéey de 2000 à aujourd'hui industrialisation defuñu ko au contraire affaire yi toog et pourtant il y avait tout ce qu'il fallait tous les instruments ñu ci pour que justement tapisserie justement Sonacos yeneen ak yeneen ak yeneen ñu mën a continuer liggéey du point de vue économique et le drame le drame ci biir affaire boobu mooy que nous avons eu deux régimes libéraux yoo xamante ne defuñu dans le libéralisme dañu def dans le keynésisme on nous a pas amené l'économie nécessaire boo xamante ne moom la ñu war a dem ñu toog tey xool engorgement de Dakar c'est la plus c'est une faillite politique une faillite économique quels sont les possibilité pour que ñu changer ko quand cinq quand Abdou Diouf part les quartiers les plus reculés ñu ngi jàpp parcelle tey ñu ngi yor par exemple Diamniadio depuis quand Diamniadio existe depuis quand Diamniadio maanaam ñun ñaa ngi fa quel est son impact économique en termes de flux monétaire en termes de flux de biens en termes de flux de personnes yoo xamante ne mu ngi créer la valeur ajoutée en termes de vie économique loolu yëpp il faut que ñu analyser ko Hmm. C'est-à-dire que nous, moi, mon grand problème, c'est que quand on fait les analyses, et c'est là peut-être que Boubacar, il va falloir aller au-delà, nous, nous, analyse politique, toxique, élection, démocratie, c'est nous tarder. Dès que 70% population, 30, hmm. ils ont moins de 30 ans. Dès que capital 0,3%, nous consacrer 5 millions de nuits. mooy que si biir dara newu fa et pourtant et pourtant boo demee marché Diaoubé en vingt ans qu'est-ce am na loo xamante ne raté nañ ko en termes de rendez-vous économique avec Tambacounda le marché de Diaoubé le plus grand marché de la sous-région pourtant defuñu ko Kaolack boo xamante ne c'était le centre névralgique le poumon de l'économie du Sénégal poumon euh, agricole ak yooyu yëpp en vingt ans les libéraux ont raté ce rendez-vous là ça il faut l'assumer il faut l'assumer nous dans le dans le maintenant nag dans les écoles On a, on a créé, Watt a créé beaucoup plus d'écoles que Abdou Diouf n'en a fait en, que le Parti socialiste en a fait en 40 ans. Sauf que quand moo fa nekk où sont les enseignements techniques ça veut dire que tey on a créé des écoles on a fait des murs et tout ça mais on n'a pas transmis la les connaissances techniques beneen affaire am na beneen affaire Wade a mis beaucoup d'argent si biir mais xam bi est-ce qu'on doit le faire en français wala en wolof donc pour man i y a Oui, allez-y, pour moi, tout simplement, de, mille, de 2000 à aujourd'hui, la qui s'est passée et qui, pour moi, est quelque chose qui a tout changé par rapport à création de l'euro en 1998, nous créer la dévaluation, retarder un processus de les libéraux sont venus, mais sans une politique de libéraux. Sans une politique libérale, et, pendant, mm. et jusqu'à présent, on a géré sans pourtant. di tot fa lay gën di exprimer wu fa lay gën a loolu moo indi loolu yëpp parce que tout simplement du point de vue économique on a failli. justement Charles loolu li koy faj. en une minute. <coughs> mooy ñaar deux minutes jox naa la une minute. ñaari axe premier axe bi c'est un beneen bi c'est le citoyen sénégalais. Mm. ñun institution yi. euh, on a, les citoyens sénégalais ñu ci bëri ils ne se reconnaissent pas en nos institutions. parce mm -hmm. qu'on a un problème de modèle étatique. état bi ñu yore c'est un état qu'on a importé ci année année soixante. Mm-hmm. à dire dañoo jox un état clé en main. Mm-hmm. ça explique beaucoup de choses ma joxe ñaari exemple citoyen bu ñu formé ci école ak ki ñu formé ci daara ki ñu formé ci école mën na xam hymne national mën na xam les couleurs mais ki ñu formé ci daara peut-être que xamul hymne national xam donc on il, nous, il nous faut travailler avec un citoyen et il nous faut travailler avec des institutions fortes. Je donne un exemple pour finir. On a une constitution boo xam ne dafay may président lu ñuy wax hypertrophie présidentielle. président mooy buum di buum yi. ça prouve également 2000 ba léegi qu'il y a un échec des politiques publiques j'aime pas parler d'échec parce que man dama xaw a gëm vision euh, Madiba wax na que euh, je ne perds jamais soit je gagne ou j'apprends donc échec gawma il y a un problème d'orientation stratégique de nos politiques publiques mais looloo waral président génn et il a avoué un échec sans le le savoir dinaan j'ai compris dinaan def jeunes yi du xaalis moo koy faj encadrement la éducation la formation Aujourd'hui, on a un ministère de la jeunesse, on a à côté un ministère euh, du secteur informel et de l'emploi. Et pourtant, problème au Sénégal, problème au jeunesse. On a de la population qui est jeune. Mmh. Donc, euh, on va encore créer une structure, le Conseil national euh, de l'emploi de l'insertion des jeunes, alors qu'on a énormément de structures. loolu c'est des anciens budgétivores mm. c'est peut-être peut-être peut peut-être c'est pour gazer une clientèle politique mm. mais pour man en tant xaw naa dugg fu bëri ci ci ci réew mi non xaw naa mais dama gëm ne le Sénégal c'est un géant au tête euh, c'est un géant au pied d'argile xam nga lu tax lépp Ndakaaru la ne boo duggee ci biir mais on a un problème d'accès d'eau dans dans dans certains villages mm-hmm. on a un problème d'électrification même si des efforts ont été faits et donc li ñu war mooy renforcer notre décentralisation renforcer les compétences des collectivités territoriales mais organiser également les, les élections, pour, pour montrer euh, que la légitimité populaire elle est finie depuis 2019 pour, pour les maires. Normalement may jégal bu ma sañoon ñu gën a yaatal. Oh, mais temps temps benn euh, euh, Malal ku ci nekk ngeen may ma régis deux minutes de prolongation pour Pape Djibril pour Malal. Pape Djibril oui. alors man bu ñuy wax 19 euh, mars damay commencer par rendre hommage à Abdoulaye Wade. Hmm. Abdoulaye Wade ne commence pas le 19 mars 2000. Abdoulaye Wade c'est bien avant 1974. Abdoulaye Wade c'est un combat démocratique pour l'Afrique, pour le Sénégal. Abdoulaye Wade aussi c'est c'est c'est le combat contre l'apartheid. ñu bëri dañ koy fàtte. Abdoulaye Wade a beaucoup beaucoup beaucoup fait pour l'Afrique. je pense que ne euh, je le dis souvent les grandes nations li ñu rawantee mooy bi ñu ñëwee dafa dañu choisir yëkkati seeni mag. feeñal la ñu baaxle la ñu safaan la ñu suturaal leen ba bu ñu leen di tudd day mel ni dañuy tudd ay ay prophètes. Mm-hmm. demee États-Unis bu ñu waxee les pères fondateurs dafa mel ni ay prophètes la ñuy tudd et c'est juste des gens qui à un moment donné avec leurs force de faiblesses ont tenté tant bien que mal de contribuer je pense que Wade man foofu laa koy dugal il a beaucoup fait. démocratie nag finalité am yëpp mooy épanouissement économique et social. Mmh. c'est-à-dire que si les alternances ne débouchent pas sur de véritables alternatives à tout point de vue jëriñul dara ça aussi c'est une tradition boo xamante ni depuis le fameux discours de la boule bu Mitterrand ba tey africains yi dañu sonn ci élection on enchaîne les élections on vote comme pas possible ça mobilise énormément de ressources et ça ne débouche sur quasiment pas grand-chose justement wax nga léegi li illégitimité maire yi depuis 2019 boo posé question citoyens yi sax daanaka dafay mel ni yëguñu ko ci seen quotidien mm-hmm. Mm-hmm. parce que on renouvelle le personnel bi fa nekk et après il n'y pas de changement bu bu fondamental donc euh, du point de vue économique et social du fi xaj xëy na pour ñu def euh, jeter un regard ci rétroviseur bi di xool sur le plan économique sur le plan social ce qui a été fait est-ce tey la gën a dund dund gu mucc ayib y vingt 21 ans ou pas est-ce que ñun ñoo gën a sonn suñuy wéyjur yu góor est-ce que suñuy jeune fii est-ce que est-ce que suñuy femme ñoo gën a sonn seeni yaay ak seeni maam yu jigéen wala déet c'est une grande question leneen li mooy sur le plan infrastructurel c'est vrai def nañ ay infrastructure waaye ñun d'accord nañ ba tey ne fun dafa war a sori dañu d'accord ba tey ne Kolda dafa war a enclavé wu Médina Yoro Foulah dañ ci d'accord contrée lointaine sax lañ koy tuddee. wala naan le Sénégal des profondeurs te doo daw 1000 kilomètres. cela veut dire que le défi infrastructurel il est réel. à tout point de vue. débat bii nii Covid moo ñu ci dimbali. parce que Covid moo ñëw nag daal di mettre nag la lumière sur toutes ces insuffisances le défi infrastructurel leneen li ci nekk mooy la pertinence des infrastructures yoo xamante ni dañ ci débattre pertinence infrastructure yi. le terre pour man daf ci nekk une illustration parfaite. pourquoi mais beneen bi mooy rapport bi nga xamante ni am nañ ko sur le les sous astronomiques. yi nga xamante dinañ ko injecté pour infrastructure yooyu. le rendu pose problème. ana xaalis bi fan lay dem. fan lay jóge fan lay jaar. lan y a détournement d'objectifs yi détournement de deniers publics c'est une réalité. il des gens qui continuent de s'enrichir de façon extraordinaire dans ce <coughs> pays extraordinaire dans ce pays loolu moo tax le candidat Macky Sall avait fait un excellent diagnostic mais loolu aussi moo taxoon à l'observation mu xam ne mm-hmm. lii ma jàngat bi may juridiction yi mënu koo lijjanti CREI yi rek moo ko mën a lijjanti donc que CREI yi demeure même si elle doit être réformée beneen bi mooy l'échec de la décentralisation mm-hmm. moi je le dis je suis un enfant du monde rural la décentralisation dafa nekk ba tey jii ba 60 ans après ñi ñuy jiite seeni du ñu fajoo ci hôpital public yi suñu ko mënee du seen doom du jànge ci école publique. nañu def benn benn kii beneen bi mooy la véritable avancée pour man fondamentalement te lii xew nii jamono yi daf ko fi fekk daf ko daf ko wane fan yi la véritable avancée mooy la conscience citoyenne mhm. te loolu dama ciy rendre hommage quelqu'un comme Malal la la conscience citoyenne pour man dafa am une avancée extraordinaire mooy que désormais les gens s'interrogent de plus en plus sur le profilage mhm. quel type de dirigeant il nous faut pour le Sénégal de demain quel type de dirigeant boo xamante ni dootul am parce que depuis 1960 aussi il y a une incapacité de nos dirigeants à se projeter parce que tey jii boo demee dëkk bu mel ni Maroc ñoo ngi wax moi je suis très dubitatif par rapport ak le système démocratique à l'Occident comme ñooñ ni ñu ko parce que boo demee dëkk bu mel ni Maroc tey mais ils ont su faire Maroc Maroc waa Occident d'accord uñu ak ñoom ci seen système démocratique Rwanda d'accord uñ ci hmm. et pourtant ils réussissent des choses boo jëlee Tanzanie tey à un moment donné dañu jël seen responsabilité boo jëlee Kenya. Mhm. nga xamante ni boo jeexaan ba mel ni man dans les années quatre vingt dix dañ naan la xanaa Kenya nga jóge mhm. te xoolal léegi xoolal seen flotte aérienne ni mu mel. donc il y a des options. yu ñu war a def y a des y a des visions mais il faut éviter les réformettes. Mhm. de véritable réformes yoo xamante ni souvent mën na am un cachet impopulaire mais c'est des réformes révolutionnaires qu'il faut assumer. Malal, tu m'avais demandé waaw no non en fait pour man Amadou Makhtar Mbow am na 100 ans. Mm-hmm. chance la ñu fekkee ko parce que 100 ans quand même c' est pas n' quoi <coughs> Macky Sall confié woon na ko mu liggéey ci réforme. nationale yi ci no confié woon ko sax ci commission nationale. Euh, des réformes des institutions pour man par rapport ak crise yi ñu jógee fan yi nii par rapport effectivement ak trois ans yi nga xamante ne moom moo ko dese. il peut en sortir très très grand. en appliquant effectivement en appliquant ces réformes-là et en rendant hommage à Amadou Mahtar Mbow de son vivant hmm. il sera très très grand merci euh, Pierre euh, gis-gis ci mujj na kii mais nañ ko nañ ko leb ba beneen yoon concession autoroute à péage bi la hmm. euh, la nouvelle règle ou les nouvelles règles ci véhicules administratifs yi ak je pense que mun nañ ko leb ba merci vraiment ñi àndoon